feeñal suñu jëmm ak suñu yéene ci ñëpp xam ne rek euh, dañoo taxaw temm ngir euh, jàkkaarloo ak nguuru Macky Sall donte nag mag mu baax mu ñuy wax Alioune di koo xam ne sénégalais yëpp a ko ameel njukkal ndax moom ba nekkee Sénégal ba tey muy nguuru Wade ak nguuru Abdou Diouf ba ci nguuru Macky Sall musta soppiku ni muy doxe mooy àq ak yelleefu doomu aadama daf koy taxaw te it bu loolu weesoo loolu mooy liggéeyam waaye bu loolu weesoo bokkut ak paa yi nga xam ne moom dañoo nekk ci dëkk bi di yàq rek di di jaxase nit ñi moom lu baax rek lay def saa bu gisee euh, lu baax daf koy def ciy dox jéem a jubóole nit ñi di jéem a wan président yoon wu leer di ñaan président Macky Sall mu déglu bu baax Alioune moomu ndax Alioune Tine euh, nekkul koo xam ne dafa far ak ñii muy ñaan pour ñu génnee ñu mu ñu génne leen nekkul tamit koo xam ne dafa far ak état bi dafa nekk nit ku neutre ku rafetum xel tey mag kon nag bu gisee combat bi ñëw di waxtaan ak yow maa ngi lay ñaan bu baax a baax nga may ko nopp te déglu ko te itam di ko wax tamit ñun ñii ñu ngi am respect bu baax ci moom lii ñuy def suba tamit dafa nekk loo xamante ne dafa xas ba ñu def ci ay déplacement ba noppi waaye nekkul teggi ndigalam nekkul tamit bëgg a maye bopp rocc làmmiñ su loolu jàllee nag euh, di woo sénégalais yëpp ci bu ñu génn def nañ marche bi bii ñu weesu ku nekk xam na ne amoon nañ ci satisfaction ndax nit ñu bari ñëwoon nañ waaye nag nit ñi tuuti woon nañ ci ñi war a ñëw ndax nañ xam ne ñi ñuy xeexal lu mu néew néew mat nañ ñaar fukki nit te ñaar fukki nit ñooñu amu ci kenn koo xam ne ab plainte moo la bàyyi fa nga tëdd amu ci kenn koo xam ne tamit da ngaa nekk danger public wala da ngaa tooñ benn sénégalais te ñoom ñëpp koo ci bàyyi woon tey tey bu subaa bu gisee loo xamante ne ni normalul ci Sénégal dafay jóg xeex ko mu tàmbalee ci Abdou Karim Gueye muy Cheikh Omar Diagne muy Papito Kara muy Ousmane Diagne muy amija ak euh, ñoom ñëpp kenn ci ñoom koo xam ne sa soxlay bopp nga doon dox. bañ jàpp la amu ci kenn koo xam ne sa waxi bopp nga doon wax bañ bañ jàpp la amul amu ci kenn ku nekk ci ñoom rek dañoo laal diwlin gi wala ñu laal ceeb bi wala ñu laal courant bi wala ñu jalgati àqi benn sénégalais tax mu sol dàllam génn këram wan gannaaw ak njabootam di la jéem a saafaraal yow sénégalais bi loolu ñu teg ci sa kaw moo xam ab injustice la moo xam yeneen loo xamante ne waruñu ko teg ci sa kaw loolu nag bu fekkente ne ay nit lañ yoo xam ne seen baax mooy ñoom génn seen kër tëj seen buntu néeg bàyyi seenu njaboot di jéem a régleel nit ñi seeni problème buñ demee ba am problème nit ñi nag war nañoo génn picc mi wax na ne biñ ma jamee deewu ma waaye bi ma geesoo ba gis ki ma jam ci laa dee di xeexal aw nit bañ jàpp la metti na waaye nag nit ñi toog di la seetaan bañ laa euh, lijjanti looloo gën a metti ñu jàpp la kon donc ñoom gis gi ñuy gis ñu nekk di jéem a def ay activités ñun sénégalais yi pour wan leen ne euh, ñi ngi métti li leen dal te ñi ngi jéem a def ay effort pour wan leen ne li ngeen ñu doon defal fat gis nañ ko loolu day tax ku mel ne Abdou Karim géey ku mel ne Cheikh Omar Diagne ak ñoom ñëpp buñ ko gisee seen xol dina dal nekk giñ nekk ca kaso bi sax dinañ ko fàtte. Mm-hmm. waaye bu ñu toogee ci suñu kër yi mel na ñii daal euh, dañoo amoon jot rek di ñu xeexal normalement kon ñoom. kaso bi warul leen a metti waaye seetaan gi leen sénégalais yi seetaan moo leen war a metti di woo tamit euh, ëttu politique bi man ñii ñëwoon nañ collectif bi ñëwoon nañ ci kër ga sarse woon ma ne man naa waxtaan ak bépp kilifa euh, politique bu nekk ci réew mi ba ma joxoon leen ci sama ndigal sama sama kàddu boog waaye damaa nekkoon ci ay teq-teq parce que teq-teq bi tamit du dara lu dul sëñ Moustapha di xalifa sëriñ Baara mu sëñ Sidi Mokhtar dafa nekkoon ndakaar semaine bii yëpp te daanaka fu muy nekk li mu doon nekk lépp lu ci bari man ak moom ñoo ko doon ànd loolu moo taxoon aw ma woon jot pour dem ci kër benn leader di woo ko wala ma woo ko téléphone waaye maa ngi jaar ci suñu conférence de presse bii di jaar ci micro yii di woo euh, président Bougane Gueye Dany ci bu subaa ak jàmm bëgg nañu gis su moom ak mbooloom di woo Abdourahmane Diouf di woo euh, Thierno Alassane Sall di woo Thierno Bokum di woo Ousmane Sonko Euh, mbooloo mi nga xamante ne ñoom lay àndal na ku mel ni El Malick Ndiaye keroog gisoon nañ ko fa ku mel ne Basirou Diomaye Faye gisoon nañ ko fa ku mel ne honorable Birame Souleye Diop ñëwoon na ak gii Marius Sagna di woo tamit maire de Dakar di Barthélémy Dias ak euh, di woo tamit euh, mbooleem daal ñiy politique ci réew mi ak pap parti boo mën a yore ba ci Pape Djibril Fall ñoo ngi koy woo ci suñu manifestation bi suba ñi ngi soxla daal soutien mbooleem sénégalais yëpp li ñuy dox tamit dox bu noobul la mooy woote wuñ euh, xeex ba jàkkaarloog ay policier ak takk der di joteek ñoom déedéet loolu taxul ñu jóg bépp sénégalais boo xam ne da bëgg a ñëw jàpp ne dañu laawoo ci ay dóor ay lacrymogène ak yooyu kooku ñu ngi lay dalal sa xel ci ne woowuñu la ci loolu ñun ay démocrate lañ lépp lu ñuy def ci démocratie lañ koy jaaree dañuy dem ci préfet bindante ak moom su noppee préfet wax ak ñam war a waxal jox ñu autorisation ñu ñëw taxaw ci heure bi ñu ko jox wax li ñu war a wax bu noppee dellu te xaddu damm. Mhm. noonu lañ ko defee bii weesu te incha allahu taala noonu lañ koy defee bépp sénégalais muy suñu rakk yu jigéen yi suñu yaay yi suñu maam yi suñu baay yi suñu nijaay yi képp ku bëgg a ñëw nanga ñëw incha allah dana am ci jàmm mu jeex ci jàmm te xaddu damm. loolu moom dañ leen ciy jox garantie parce que Sénégal Macky Sall dafa yàq dem dafa yàq suñu suñu xaru kanamu démocratie léegi koo woo mars dafa yaakaar ne ci rey nit nga ko woo wala xeex wala ñu mel noonu te mars dafa nekk ci constitution Sénégal ñu may nit ki bu amee lu ko naqari comme que ci démocratie lañ nekk am nga droit nga wane sa naqar waaye nii ak nii ngay jaar léegi nag. nit ñi moom miin nañ ngay taxaw di ñaxtu li la naqari ñu fekk la fa rey ci yow wala ñu gaañ ci yow wala ñu jàpp ci yow ay nit loolu nit ñi dañ koo miin a miin ba yaakaar ne léegi mars moom jalgati loi la te mars du jalgati loi mars dafa bokk ci démocratie Sénégal mhm. démocratie boobu nag loolu la ñuy dundal nii mënoon nañoo woote violence wala ñu woote leneen waaye du ñu ko def parce que loolu démocratie mayewu te muy Dame muy Touré mi ñu fi teew ñëpp ay kilifa lañ ay boroomi kër lañ mhm. lii ñu woote loolu lañu lu waa may muy woote manifestation pacifique woote nañ ko nag ñi ngi ñaan préfet xaw ma préféré mu fekk si ñu ci suñ suñu man suñu manifestation boobu ci pacifique gii ñu ko woo mu fekk si ñu ci. parce que dañoo miin tamit nag ndakaaru gii saa boo fi wootee manifestation benn bu njëkk bi dañ lay may waaye ñaareel ba ca topp moom dañ lay aaye mel na léegi constitution bi daa wax ne ñaari mars yu tegaloo. dañ koy tere wala ñetti mars yu tegaloo dañ koy tere fii ñetti mandat yu tegaloo lañu fi aaye waaye kenn aayewu fi ñetti mars yu tegaloo buñ neexee di mars sek ajjuma kooku du seen problème suñ problème la ñun ñooy paas ñooy jënd suñuy ñooy luye suñuy rajo ñooy sonn buñ bëggee def suñu téeméeri mars bàyyi leen ñu ñu mars ko constitution Sénégal aayewul ñetti mars yu tegaloo ñetti mandat yu tegaloo lay aaye mm-hmm. wasalaam